sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad kun fayakun tv ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu di siyaare ñi xam ne ñoo ñuy topp ci seen bu mag bi nga xam ne ni mooy kun fayakun tv di leen baal xaq te di leen ko baalu ñu bari dañu doon laaj ci wàllu bayra bayra boo xamee ne nag daf lay ubbi waale bayre boo xam ne day tax ku la gis sopp la bayre boo xam ne ne day tax ku la gis naw la bayre boo xam ne ne koo dugganteel ma xam ne ne yow mii am nga loo laal gis nga bayre dëgg foo dugg danoo war a xam ne ne yow mii ah day am nga loo laal place boo nekk dañ lay bàyyi xel lépp looy jaay féeg jëraloo ña nga denn luñ jaral événement boo bokk yow leen say gën a ràññee moo tax ñun ñu koy defal ñu bari bayre boobu nag dañ ko liggéey teg ko foo mën a nekk si àdduna boon woowee ñu yónnee la sa bitiyel nga xam ne danga koy laal say mbir moom commencé ubbeeku ndax nit ki bayre dafa baax waaye bayra yi dafa ànd ak kaaraange waaye bayre yi dafa ànd ak wërsëg ndax nit ki mën ngaa am bayra lool waaye da ngay gàttu fan gàttu fan gi lu ko waral amoo kaaraange gu téye bayra bi wala am ñoo xam ne ni am bayra lool fa foo force suñu dugg ci biir kaso bi te jigéen moo leen fay dugal ko pexem jigéen loolu loolu nag dañ koo génnee ñun suñu bayra nga xam ne dañ lay defal kaaraange total boo xam ne ne lépp lu la waaye doon jéemal boo am bu bayra bi eh, di ñëwee du agsi lépp looy jaay xam nga am ni ñoo xam ne mën nga nekk ak ñoom di jaay buñ la gisee rek yow say mbir di dox léegi ñu def loo xam ne ni daf lay yàqal loolu nag boo xasee ba am bayra bi di ko def loolu moom nit mënu si yow dara ci wàllu woowu pour yàqal la ah, beneen bi bu fekkee yow da nga nekk si nasaraan yi wala danga nekk si naar yi wala da nga nekk si liban libanais yi walla nangam ak nangam étranger yi daal bayra bi dafa am leneen loo koy booleel si réew moomu nga ne. ak réew mu mën a doon tey bu dee Sénégal am na loo koy boole bu dee feneen am na loo koy boole noonu nga koy def nag ba xam ne ne xol yëpp dañ lay jublu wax bayra bi sallallahu ala muhammad la sallallahu ala muhammad juróom-ñaari yoon boo ko def ko sa kanam ku la gis bëgg la bayra bi wa duudu la bayra bi waal xaytu alayka mahabbatan minni la bayra bi ba duuxu la bayra bi amarum xaysi la moo tax jigéen ñi dañ lay jublu waaye jigéen ñi jublu la ndax Omar bu Xays moom ñépp xam na ne kàccoor ba si wàllu jigéen ñi moo tax képp koy sangoo foo mën a jaar jigéen ñi daan la sëkkatal waaye boo xefee rek danga am ak ñoom problème boo xam ne danga dugg kaso si Omar bu Xays waaye nag am na nooy def ba am dugal si kaaraange goo xam ne ni loolu lépp du am moo tax xam-xam daal il faut nga peek xam-xam il faut nga jàng ko kon nag loolu la ñu indiloon si wàllu bayra si mm, Kun Fayakoun TV di leen wax yéen ñi nga xam ne dangeen a nekk seen place di jaay bëgg affaire yi yomb lool di leen sikar yaa wuduudu 132 mooy xalbu sallallahu day tax mu attiré nit ñi nga xam ne ni yow mi nga xam ne yow yaa jaay ku la gis rek daf lay sopp ñëw jënd si li ngay jaay incha allah. su ko ko man nag chaque jour boo toogee sa place rek nga def ko wala booy dox nga koy def yaa wuduudu 132 sallallahu ala muhammad 132 jërë ngeen jëf Kun Fayakoun TV